liggéey bii nag di liggéeyu Touba ca kanam te sëriñ Habibou Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadil jiite ko dafa nekk liggéey boo xam ne am na solo am na solo ci diine ji rawatina yoonu murit wépp kon lépp lu ñu ci yëngu bu ñu gisee kilifa bu bokk ci njabootu xaadimu rasul ku mel ni sëriñ Abdul Fattah ñëw teewe ko jiite mbooloo mi loolu xel war na cee dal te ni ñu ko waxee jamono bu nekk mu ci jiital ay jëfam ba ñu seede fii ne kenn mënu ko ci liggéey bi ci bu mu ko tàmbalee ak léegi loolu ab soññe bu rëy la soññe bu rëy la ndax kenn ku nekk li mu gëm moom xam ko moom la wane te mooy yëg ne sëriñ Touba kenn ku nekk la mu seq ak yow ak la muy jëflanteeg yow te kenn wuutuwu ko ca kon delloo ku njukkal war na delloo ku njukkal war na ci jëf yi ak jikko yi ak melo yi waaye kenn ku nekkit la mu la baaxe ci wàllu wërsëg te daggu ca kenn te yow nga man koo seede sa digg ak sa borom kon lépp lu yëngu jëm ci moom kenn waru la caa jiitu kon loolu bind bu rëy rëy la euh, di sant nag mbooloo mi ak ñi seq liggéey bi yépp ndax liggéey bi bi mu tàmbuleek léegi ay atam bëreegul waaye résultat yi mu wane ku nekk mën na cee teg bët te damay faral di wax ne li ëpp solo ci ab liggéey nañuy man a teg bët ci résultat yi walla bu ñu ko làmbee daj ko liggéey bi nag damay faral di wax ne jëmm ji ñu ne moo ko jiite di Cheikh Mamadou Habib moom Cheikh Mamadou Fadil noonu lu tuuti li ñu xam ci moom man jàpp naa ne fileeg mi ngi koy jiite xel murit yu bari danañ ci dal ndax xam naa ne ku gëm sëriñ Tuubaa la xam naa ne ku bëgg sëriñ Tuubaa la waaye xam naa ne ku doyloo sëriñ Tuubaa la te yooyu leen lu ci nekk dafa am tuuti lu ko séparé ak morom ci nit mën naa gëm sëriñ Tuubaa te nekk sax ci beneen tariixa waaye dana gëm ne sëriñ Tuubaa am na may suñu borom am na lu ko suñu borom jagleel waaye teewul mu yor werd wa ko yàlla féetale nit itam dana bëgg sëriñ Touba ba ñu xam ne bëgg na sëriñ Touba waaye doyloo sëriñ Touba gi foofu am na différence ba tey ndax ku doyloo sëriñ Touba itam bari na loo xam ne lu jamono yëngu-yëngu kenn du la ca séen kenn du la ci dégg ndax doyloo ko moo ko sabab kon nga gis ne Euh, li mat a sabablu man cee mat cee góorgóorlu mooy fexe gëm sëriñ bi fexe bëgg sëriñ bi fexe koo doyloo ndax ñett yooyu bu àndee rek liggéey bi dana mën a jàppandi liggéey bii nag file léegi yi jàppe ko ne moom moo war a nekk bailleur de fonds bu yoonu murit muy Touba ca kanam ñoom ñi ko yore di ko doxal itam ñi yëg ne ñoo murit yépp a ko bokk ñu jàppee ko noonu xam ne murit bu nekk am nga ci wàll am nga noo ci war a taxawe ndax kat bu kenn jàpp ne fu ñu fi gis ñu fay def dara rek njàmbaarug ñooñu moo ko fa yóbbu wala seeni cotisation liggéey bi ña def ak ña defut ñépp la war laal wan leen fa lëkk kàttanuk sëriñ bi ndax fonds yi dikk ci yoon wi fond yooyu dañu war fexe ba organiser ko ba nga xam ne gëmloo nit ñi ne kenn ku ci nekk sañatoo toog at moo ko joxewul wala nga joxe lu ko ëpp ndax yoonu murit a ko moom lu yoonu murit moom nag bokk na ci ñu yéene ci jëfal ci sëriñ bi ci dëkk bi waaye war nañoo xalaat ne sax ëllëg ak si biir war naa mën a génn dëkk bi dem ci yeneen dëkki sëriñ Tuubaa yi ak beneen jullit boo xam ne sax tàmbule woon nga jàkk te eggul wala moom nga soxla ko ci sa pénc Touba ca Morit war na faa wane doole yi sëriñ Touba ca foofu ak ne ko lislaam itteele woon loolu nag faaw ñu ciy gën di leeral nit ñi xam ngeen ne lu mel ni màggal yi xew ci yoon wi léegi yokk na te day gën di yokk waaye ku xool at yi ci ginnaaw xam ne nii mu mel léegi melu ne woon bu njëkk léegi daanaka at mu nekk samedi bu ne mën ngaa wax ne nangami programme ci yoonu murit am na ci samedi boobu bopp at miy jeex kon foofu te màggal bu ci nekk am na ay daayira yu organisé wu di dem ci màggal yooyu di dajale seenu ñàkk di ko fa yóbbu bu ko defee li ci mat joxe ndigal mooy kilifa yi daayira yooyu di ñëw ci ñoom président daayira bu ci ñëwati nan ko jotal ne ko am na kat sas woo xam ne war ngeen balaa addee ji ak seeti fii na ngeen ci teq addiyee joo xam ne dangeen koy jëmale ci Touba ca kanam ngeen ber ko fee tam bañ bokk ci li ngeen ma yéeg loolu bu fekkee am na ci kilifa yu ko def ba noppi xëy na te siiwaluñ ko lu mën a nekk la waaye am na ci ñoo xam ne ñii ci wàllu daayira yi bu leen ko kilifa jotagut a jotal nañu waxtaan ci seen biir nañuy defee bu addiyee ya dajee bala ñu koy yóbbu ca sëñ ba ne lii la ñuy luye oto yi seppi ko teg fee lii lañuy bàyyi ci kees gi lii lañuy ñuy yëpp sëñ bi nañu ko cay boole ne addiye ji moom la ñu jagleel Touba ca kanam ndax mooy fond bi nga xam ne mooy fond sëriñ Serigne Touba bi nga xam ne képp koo xam ne ki yoon wi itteel na la war nga cee mën a jariñoo ndax kat dadut yomb addiye ji ñëw ba ci kanam sëñ bi nga wëlbatiku naan ko lii laa bëggoon a jox Touba ca kanam wala li fii laa ko jëme bu boobaa séparé ba duutu yomb kon kenn ku ci nekk war nga ci yëg sa bopp ci loolu te daay yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew yépp itam ñenn ñu nekk yëg ne la leen ci war euh, dafa mel ne lu leen war la loo xam ne sañu ñu ko bañ a def loolu lañ war a gëm ndax loo xam ne lii ñu ngi ci yëngutu ca ñépp la ñaaw ciy jariñu loolu kenn ku nekk war nga cee taxaw sa taxawaayu bopp boo xam ne ñëpp danañ ko ràññee ñi nga xam ne it ñoom la bokkal sëriñ bi ñuy ay sëti sëriñ Touba kilifa gu ci nekk boo yëgoon ne li la war ci dëkk bi yépp kenn warula la raw kenn waru la caa man lu mel ne màggalu Touba bu ñëwatee ba jàll kilifa gu ci nekk war ngaa mën a yëkkati lim bu takku ne liikat nañ ma ko defal ci fond boobu muy tuubaa ca kanam ñu boole ko ci liggéey bi te nga xam ne la la nit ña yëg lijjantil sëriñ bi ëllëg foo ko dugal lu mat a bàyyi xel la ndax aw ñàq dafa diis kon ki yëkkatiw ñàqam ñëw jox la ndénkaan la loo xam ne lii dugalal ko ko foo xam ne ëllëg doo ci am benn xel moo gën a dalum xel kon loolu ay kàddu la yoo xam ne waxoon naa ne danaa ko soññe sama bopp soññee ko bokk yépp ak bokki taalibe yi te ñu xam ne daal Euh, sëriñ Abibu mi léeg-léeg dama ko koy wax dama ko naan nit ki lu mën a xew na defar jikkoom sàmm ngorom sàmm diineem te nit li tax mu mën a sàmm ngorom ak diineem day sax ci njub tey nangoo liggéey tey jaamu yàlla ndax sëriñ Tuubaa daf daan wax ne bëggoon naa ku aju ci man ngay xam ne day lu mat a sonne sonne naa ko bu yàgg ba noppi ku ci toog te nekk ca la nga war a nekk muy tegu ci yoonu siraatal mustaqima te bañ koo wàcc loo war kon a wuti ci àdduna loolaay jóg fekk si la kon li am solo mooy jub tey jubal koo xam ne nag bu nit nekkoon ci safaan bu la séenee wëlbatiku kon yow war nga boo wéetee nga wéet sa borom ba du umpule dara lu muy ñaaw njort ci yow kon nañu góor a lu ci liggéey yu demee nii Ah, te ñaan suñu boroom mu bañ cee dugal lenn ci pexe saytaane wala ñu bañ cee gis suñu bopp te xam ne liggéeyal sëriñ bi dëgg bu wéree ba wér soxlawul sax propagande bu bari ndax bu boobaa ci xol yi la suñ borom di roof li nga xam ne mooy ngëm ak propagande ba ci war ndax ku ne xam ne ne dëgg rek moo mën a yàgg waaye ay nax du yàgg mukk nax du yàgg ndax mën ngaa nax nit ki ngir sut comme xel waaye bis bu xamee nax yi kero la lay ba wala mu seeti weneen yoon wu mu jaar dëgg nag njëlbeen gi day metti nit ki sax day defe ne da nga koo bañ waaye bis bu xamee dëgg gi dana la tëye fukki loxoom kon loolu mooy li am solo te gis nañ ne liggéey bi foofu la tege résultat yi mi ngi feeñ tey gis nañ ne ci yoon wu wér la tege yoon wu wér a wér la tege woo xam ne amul dara luñ ci laam-laamee kon loolu mooy li am solo ndax euh, xam nañ sëriñ Habib bu baax xam nañ ñi ko seqal gis nañ doxin wiñ ciy dox kon yàlla na leen ci yàlla jàppale te kàttanal mboolem ñi ci bëgg a jëf lu baax lépp ak euh, rakk sëriñ bii nga xam ne mooy mbokkam di sëriñ Cheikh Oumy euh, ñu bokk sëriñ Fallou moom it taxawaayam ràññee nañ ko ci te yëg nañ ne wéttal la ci liggéey bi ak sëriñ Tako Mbacké ak mboolem bokk yi nga xam ne yëpp jàpp nañ ci ak sëriñ Abdoul Ahad bu sëriñ Habib Euh, ñooñ ñëpp ñu ngi ci biir nun nag ba nga xamee ne yëg nañ liggéey bi ba naga ni ah jàpp nañ ne kenn waruñu cee jiitu at mu jotit suñu kàddee ñu ngi ko ciy dugal fas nañ yéene yit muy gën di yokk ak suñu valeur bii yëg nañ coonam sëriñ Cheikh Mbacke Omar ak taxawaayam ak seeni itte yàlla na leen yàlla kàttanal sëriñ Fallou Gala Sill waaw ñeen ñëpp ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax di am mbégte ci lëggéey bi nun daal ñu ngi leen di seedeel ne fuñ ñu fi yëg rek ni yéen a ngi ci yëngu buñ ko yëgee rek ñu teew si incha allah ànd ak yéen li ngeen ciy def lépp ci biir ak ci bitti wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh